sénégalais ñooy gis ne am na changement amul changement waaye lan lay bañ démocratie duñ ko natt ci dama bëgg a marche ñu tere ma marche déedéet du foofu la ñuy natt démocratie démocratie mooy dama toogoon fii Dakar ma bëgg am kayitu juddu mënuma am kayitu juddu parce que amul dara loo xam ne état teg na ko ngir ma mën a dabuwaat ku ne gis na audience foraine yi loolu tax na ñu bëri amaat kër juddu loolu démocratie la ñu xeex lañu lañu la ñu avance avancement avance la benn atu la nga toog nga ni man mënuma am ndox parce que côté social bi sones di wax il faut ñu xaar vingt mille personnes bindu ñu door a ñëw montel la donte am ko si kii mais tey boo xoolal ba ci capital bi ñu dëkk ñu bëri ñu amul woon ndox am nañu ndox nga ni man chef d'entreprise dama bëgg nekk chef d'entreprise ñun la su ma amul un million APEX du ma délibéré lu mel ni sama agrément ma am sama indinéaire tey vingt mille francs ngay joxe nga joxe ñaari téeméer yu deux mille nga nekk directeur am na nekk chef d'entreprise yooyu avance démocratique la da nga doon toog ñu ne la da nga a faju ñun la état kat nee na boo amee carte bi sept mille francs la état dina la fayal trois mille cinq cent nga joxe trois mille cinq cent nga am sa carnet CMU boo bëggee faju nga mën a faju ma daane la ci mag ñi nga ne nga doon nekk mag war a faju nga ñëw ñu la du ñu jël carte plan Sésame parce que état da leen ameel xaalis demal seemi syndicaliste yu nga dégg lu bëri état def na ko loolu mooy xeex démocratie bu ñu ko yóbbu rek ci dama bëgg ñaxtu doo ñaxtu ñu ne démocratie dafa dellu ginnaaw loolu politiciens yi seen bopp la ñuy wax ci loolu mais du ñu xool mukk réforme yi am solo ci éducation ci enseignement supérieur ci justice ba ci foncier bi réforme yi am solo yi état di Sénégal def loolu avancée démocratique la tey jii may wax ak yow demal ci acteur politique yi ba ci dialogue bi ñu nekk soo demee ci dialogue bi ñoom ñu ngi may dégg opposition bi di nga xam avancée démocratique bu Sénégal nekk tey mieux demal nga xool sous région bi dañu xool Sénégal ci ni ñuy doxalee ñu mën ci doxal ngir seen réew donc loolu buñ ko xeeb buñ ko xeeb li am solo mooy Sénégal dafa fu mu toll woon ba nit ñi doon xeex 23 juin wax nañu ko sànq duñ ci ñëwaat tey sénégalais boobu doon xeex ne ah, ne man damay fanaan ci école ma ne naa dem l'obélisque xeexal sama population mooy waa banlieue moment bi xeexatuñ ko kenn nekkatu ci école ndax inondation nga ni man damay dem xeex aw ma courant aw ma ndox tey ñëwatuñ l'obélisque man la fekkee naa nit taxaw mu ne mankat lii ay bon impayé la baykat la dëkk bi su amoon démocratie man dinaa mën a bay fayeku mais tey kenn xeexu ko parce que tey kuy baykat yaa ngi fa nga dëkk yaa ngi fay fekk jiw yaa ngi fay fekk euh, engrais ak yëpp luy matuwaay état jël na ko pour man loolu mooy démocratie bu ko yóbbu rek ci ne dama bëgg a jox ñu ma marche bu ko defee ñu ne dafa Sénégal mu démocratie loolu laay toll ci loolu. ci dëkk Diourbel fi muy jotee mbir mi day fekk ay yéex loolu du ñàkk mais li am solo mooy nga jël un million de ménages nga génne ko ci gaf ak réew leen ko ci wàllu dund sénégalais bi nekk daanaa diaspora ak fu mu mën a doon. nga am loo génne jagleel ko ko loolu lañ ne dafa am nekk lu am solo ñu di ko rafetlu beneen bi mooy ku nekk gis nga tey sénégalais doon def ay ñaxtu ngir ñu indi leen seen mbokk yi ci génn àdduna ci bitim réew ngir ñu suul leen seen i wet état bi di ko def ak alal ju bëri loolu day wane ni le président Macky Sall day déglu la population dem nañ ba ne sax dafay def dañuy def pression mu dellu ginnaaw déedéet. xëy na dañu amul tous les informations li am solo sénégalais yi surtout la jeunesse sénégalaise bu ñu bàyyee suñu ay frères di dee ci géej gi ndax ay affaire activité de vacances war nañ mën a def moment bi vacances bi amee ñu bàyyi xale yi nekk en classe d'examen ñu dem jàngi ngir seen avenir waaye bu école ubbi mais ñu encourager population bi encourager parents d'élèves bi ñu bàyyi seen doom ñu dellu ci ay boîte de bàyyi seen doom ñu dellu ci plage yi bàyyi seen deel ñu dem defee activité de vacances vacances comme nawetaan loolu dañu ne ànduñu ci dañu ne ci ginnaaw état di Sénégal jeudi vingt cinq na école bi ubbi ñi nga xam ne ñoo nekk en clan d'examen ñu dem jàppal leen ñu def jàng def seen examen ni mu waree bu ko defee ñu mérito seen diplôme moo gën ñu bàyyi xale yi dem ci ay plage di fa dee dem ci ay plage di fa def naka sudul noonu alcool dinañ fa fekk drogue dinañ fa fekk risque bu ne dinañ fa fekk loolu kuy parent d'élève dañ ci war a bay sa tànk tubéy xar ci sa tànk tubéy ba école bi bu ubbee nga fexe sa doom jàngi état nag jël na ay matuwaayam dégg nañ ministre mu wax li ci des mooy ñu sensibiliser la population sensibiliser les élèves sensibiliser les étudiants ba ku nekk moment bi nga waree utee xam-xam nga am ko ngir ëllëg mi mën la jëriñ loolu lañ doon wax sama mbokk ndaw ñi di encourager la jeunesse sénégalaise ñu yokk seen patriotisme ngir ëllëg Sénégal bi ñu bëgg en tant que ndaw yàlla mën ñu ko may du ma jeexal te remercier moom suñu ay frères yu fi teew yëpp muy la camarade Bassirou Guissé Sylla ak la jeunesse féminine ak ñi nga xam ne aussi mooy René yow Yobé Nazir bu Cogère jàmm euh, jàmm gën si Kabaaw ak sama gars yi nga xam ne ñoo jógee dans la banlieue di defal mention spéciale nag la presse sénégalaise seen taxawaay.